mu ngi wax li règlement bi nangu ak li mu bañ ci ñoom ñaar dox ci diggante Cobra ak Bass 2 ndaysaan kii Cobra bu Bawol la ak Bass 2 Cobra ak Bass 2 ndaysaan mbokk yi Cobra moom nga la woon ginnaaw Bass 2 moom nga jàkkaar lool ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo Cobra jiital tànk càmmuñ bas jiital tànk di joor ñoom ñaar lan moo a xew dox ci diggante Cobra ak ak bas ndeysaan Cobra dóor na Cobra moo tent bopp bi ndeysaan ngemboo ngeew lu ruus bi takk takkaay yu bas du na Cobra bas ndeysaan ñoom ñaar combat bi combat bu neex la waaye tànk yi jegeente nañ Cobra dóor na koy dóor basa ngay ñëw Cobra Bass xeex ba bëri na na jëli ko da koy daan wala déet am na tànk bëj na ko dara xewul daan na ko waay daan daan na Cobra Bass daan na Cobra Bass daan na Cobra wala déet waaw waxoon naa Bass daan na Cobra Bass daan na Cobra waaw waaw tegul ans wala déet Cobra daanu nga jël bu la bett ah daanu na jël bu ko bett waaye moom Cobra eh Cobra ndeysaan xoolal ma supporter yi basi ndeysaan gàttandu nañu ko da lay làmb